Assalamu alaikum. This important message is for my fellow Gambians, Gor ak jigéen Mak ak Ndaw, those who love and those who didn't feel that beautiful feeling for me. ñoom ñëpp laay waxal. Number one, let us all understand. Beside our different ethnic, beside such different understanding and different sect in Islam, we are all Gambians, and each one of us is an ambassador for the country and her beautiful people wherever we are. Some of us then prefer dem jaay drug, do some deals to gain money pour dimbale hood back home. Some of us prefer prostitution. Some of us became one of the biggest stars in European big leagues. Some of us prefer to be engineers. Some of us prefer all the beautiful works. yàlla may ñu ñu am ay PhD holders yu bari this is Cheikh Ahmed Cissé's way man nag respectal naa kenn ku nekk any decision yu take in your life because sa life la and mënuma fàttale ko fan leen ma assign a George bu war a mun a George nit yi kii dafa dem safara kii dafa bon kii dafa nàngam let us all remember ne mun nañoo against nit su waxee lu bon wala mu def lu bon but to against the personal the personality it's totally wrong ngir doomi adama mooy ki nga xam ne mun naa def lu baax su ba mu def lu bon kon waruloo ko jooj waaye mun ngaa jooj his actions and his words I'm here um, apologizing to all Gambians not because I'm wrong but because we should love each other dañ war a dañ war a form a strong bond remember we have Sheriff Moustapha Deba we have the UN we have everybody pour daaneel Yaya Jammeh but we make it happen when we unite as a Gambian. We even vote for a president we never love, we never know, we never believe in his competence. But we voted for him because we don't need Jame to rule us anymore. So Fofulai Wahene, demanding this apology to the Gambian population doesn't mean I am wrong. But it means that I want us to be together. Kuneka America, Neka fa Gambian, we support him as a Gambian. nekk Dakar, Neka for Pur Gambian, we support him as a Gambian, as a Gambian. But I promise to change some of my some some of my accents to represent Gambia better and Let me say this. Any word I utter, it has a meaning and a reason. waaye dinaa wàcce level bi down to ba mu nekk common understanding ba kenn du am lu mu see debate anybody koo xam ne he is still in the past kii mooy lii kii mooy lële it's because xol bi moo feebar ku sa xol feebar na dama laa ñaanal yàlla saafara la but to make it short and very clear I am happy to represent some of the Gambians in the Senegalese media and in their platforms at least for the first time ñu mën a gis a Gambian a proud Gambian ku mën a ñëw foofu dominate fekk leen seen game be the winner xam nga they try everything I was kidnapped you know dóor yu métti from there it takes me to another level misunderstanding to prison from there to another level now dama divert everything to, to the positive way for three reasons number one nga gis ne dañoo ne ah kii de Gambian la he is doing these beautiful things which will be very nice and it will make all Gambians happy number two euh, def ko pour ñi nga xam ne ñoo ma xam te bëgg ma de so tired dañ dee xeex ba sonna melut noonu xol bi dafa baax nangam people cannot understand and solal booba boo xam ne suñ la gisee dañoo understand number three mooy for dem to know really who I ngir ñu ñëw jëriñu ci man a quick reminder musuma wax ne sëriñ la musuma wax ne nii la musuma wax ne leneen la people ñooma dee adresse loolu just to say baat things about me whenever I am ready to be sëriñ ngeen xam ne sëriñ bi mut sëriñ taxaw na sëriñ euh, maa ngeen ñaanal bépp doomi Gambia ah, képp koo xam ne yaa ngi doon saaga suma yaay bi ci àllaaxira yaa ngi saaga suma baay bi nga xam ne innocent la innocent la yaa ngi ma éene woon kaso yaa ngi ma éene ma yàqu ma dee ma torox maa laa wax ne man jàmm rek laa la éene Eh, képp koo xam ne bëgg nga ma bëgg nga ku baax bëgg nga ku jara bëgg ngeen baalal ma dama demoon doon jënd humble ak modesty <laughs> dama fekk borom bitig bi jeexal so awma humbleness awma modesty but other than that I love everybody yàlla ñu yàlla boole bëgga nama ma Gambien yëpp baalal ak I promise to be their ambassador in a positive way you know I change the way to roll my dice in Senegal and no matter what happened I be the winner dama leen diagnose xam leen nekk seen biir and uh, I'll be very mindful of everything every action I will take every word uh, I will utter at the end of the I promise all Gambians that I'll be the winner yal nañu yàlla boole defal jàmm bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla boole jéegal suñu bàkkaar yi képp ku ma tooñ baalal na laax waaye man it maa ngi baalu Gambien si ci yaakaar bu ñoo am ci man ak bët biñ ma xool always I never stop disappointing them I make a cross on that tey la and I promise myself it will never happen again I promise to love myself and that means to love all Gambians I promise to be the real Cheikh Ahmed Cissé you all love and know